أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع الأحكام والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية إسلامية تحية أهل الجنة في الجنة تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit ñi ginnaaw ba ñu sante borom bi subhaanahu wa taala ci xéewalam yu màgg yi ñu xéewalal di julli di salmal ci sangu-sangi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal yàlla mu dolli ko xéewal dolli ko jàmm waaye noonu lañ koy ñaanalee njabootam ak i waa këram ak i saxaabaam ak képp koo xam si topp na njubam bekoroog bisub euh, taxawaay ba mbokk yi nga xam si yéen ñuy topp ci seen télé Euh, YouTube bi nga xam si yéen ko yéen ko safoo muy KS KSTV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax fépp foo xam si foofu ngeen nekk ci àdduna bi di am mbégte lool di ñëwaat ànd ak yéen ci li nga xam si mooy koor gi koor googu nag nga xam si moom lañ dëgmal dañ ci programme benn euh, li nga xam si moom mooy thème boo xam ni si dañ koy tuddee koor ak i àtteem nga xam ni si incha allah boo ma toppee yow mi nga xam ni si yaay topp télé bi ci àdduna bi yëpp muy KSTV incha allah dinaa la xamal koor googi ak i àtteem ak lépp loo xam si moo ci aju yow jullit bi si wàll sa wàllu diine. tey nag point bi nga xam si moom lañ njëkk a war a waxtaanee ci loolu koor ak i àtteem gis nañ ni dina am solo lool ñu jiital li nga xam ni si moom mooy. dëgmal koor maanaam gàttandu gi nga xam si moom lañu war a gàttandoo koor googu ñu tuddee ko point boobu naka la ñuy euh, gàttandoo weeru koor kayfa nastaqbilu shahra ramadan kon mbokki julli ñi buñ nee gàttandu gan la gan goo xam ni si yàgg nga koo xaar pour mu ñëw seet si la lu toll ci ay weer ak i jour yu bëree bëree bari nga koy xaar di ko waajal kon gan googu dafa am noo xam ne sii noonu lañ bëgg ñu ganalee ko noonu lañ bëgg ñu ganalee ko gan googu noonu nga ko war a yow ganale yow jullit bi yow mi nga xam si yow lay seet yow lay seet si ñu gis ni ku nekk yaa ngi xalaat noo ko war a ganalee ndaxte gan googu danga ko war a waajale ci ci teraanga li nga xam si moom mooy wut ay lekk façon lekk yu ne nga jënd ko teg wala da nga ko war a waajale ci defaraat sa kër defaraat sa waañ bërëbu lekkukaay waaye defaraat lépp loo xam si biir rek mën nañ ni moo ci gën a jëriñoo déedéet loolu yëpp boo ko waxee dañ naan la nii ngal loolu baax na de waaye am na lu ko gën loo xam si moom lañ war a waajalee koor googu yooyu nag boo ko bëggee xam nga xam ne si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale nag ma topp ci point yii di ñëw bi ci njëkk nga xam ni si jàpp nañ ni borom xam-xam yépp nee nañ bokk na ci li nga xam jullit bi noonu la war a waajalee koor googu nga xam ni si moo ko dëgmal bi ci njëkk mooy ñaan point bi ci njëkk mooy da war a ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu fekkalee la li nga xam si moom mooy koor googu ndaxte adduaau silaaxul mu'min dañuy wax ni ñaan mooy li nga xam ni si mooy ngànnaayu jullit kon foo toll yow ñu ni la caabaan dugg na chaabaan bu duggee la ca topp mooy weeru koor nee na bu boobaa na nga tàmbalee ñaan lu jiitu lool sax da nga ko waroon def ndaxte ñi nga xam si ñoom la ñu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, royloo ca mooy saxaabaam yi ak i nit ñu baax ñi buñ daan jénn ci koor juróom benn weer yëpp dañ koy ñaan seen borom bi subhanahu wa pour mu dajale leen ak koor pour mu may leen ñu mën a fekkewaat koor ndax njëriñ yi nga xam si moo ci nekk kenn xamu ko kon yow jullit bi li nga war a njëkk a def mooy nii ci préparer li nga xam si mooy dëgmal koor go waajal ko mooy lan del ñaan foo jullee del ñaan sa borom subhanahu wa taala mu fekkale la ko bu la ko fekkaloo ca mooy nga gis weer woowu am na ñaan yoo xam si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko ci ca mooy nga wax ñaan gii di ñëw yow jullit bi yi nga yow mi nga xam si yow yaa gis weer wi wala ñu ni la kat weer wi gis nañ ko nga gisal ko sa bopp wala ñu gisal la ko mooy allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imaani wassalaamati wal islaam rabbi wa rabbuka allah kon yow jullit bi boo gisee weer bi say gët wala ñu gisal la ko lii nga war a wax ñaan googu ma wax allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imaani wassalaamati wal islaam rabbi wa rabbuka allah kon loolu nga war a wax deuxième point bi nga xam ni si war nañ ko waajalee koor mooy ni sant goo xam si nit ki war na ko sant boroomam bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne si moo ko fekkelee weeru koor googu ñu bëri doon nañ ñaan seen borom pour mu fekkelee leen ko mënuñ ko fekkee yow mu dimbali la nga fekkee ko kon loolu kenn xamul li nga xam si moom mooy xéewal gi ci ne kon da ngaa war a ñaan danga war a sant sa borom bi subhaanahu wa taala ci loolu ci xéewalam googu nga xam si moom la yeesal sa kaw ca ñu bari yaa leen yaa doon dundandoo ci ay weer ay fan yàlla moom na leen ci diggante bi mënuñu koo fekkee waaw ah, kon yow xamal ni kon am nga ngëneel ci kaw ñooñu ci wàllu yiw woo xam ni si moo nekk sa kanam ca mooy weeru koor googu kon deuxième point bi ci yi nga xam ne si nit ki war na ko waajale koor mbokk yi mooy nga sant borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw la fekkelee li nga xam si moom mooy koor googu si nit ki war na ko waajale koor yow mi may topp mooy nii da nga war a am mbégte goo xam ne si war nga ko feeñal ci sa diggante ak sa borom mbokk jullit ñi ñun dañoo tàmm gis li nga xam ni si moom mooy nit ñi bu nekkoor des na ñaari fan wala benn fan wala la cay des sax ñu ngi koy compter bu nekk tàmbalee di jàmbat déedéet ab jullit weeru tamel noonu boo xamee doyo bi na ci weeru koor ci ay yiw doo def noonu yow jullit bi contraire bi kay ngay def mooy ni da kontaan bég mel ni koo xam ne si dañ ko euh, bégal ni ko kat sa soxna am na li nga xam ne si moom mooy euh, bébé doom kooku mbégte gi ne ci moom cam ko doon xaar noonu lu gën a raw lool moom nga war a bég waaye waroo ñàngal waroo tàmbalee di di di jàmbat fu ñu toll koor gi nangam na déedéet jullit du bindoo noonu kon yow mi nga xam si yaa xam doyob koor danga nga war a bég ci buñ nee ne la kat koor la ca des bëreetul loolu nag li koy wane mooy yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci xadis nii mu ni jaakum chahru ramadanun mubarak kataba allahu alaykum siyaama fiihi tuftaxu abwaabul jinaan wa tuxlaqu fii abwaabul jahim yonent bi alayhi wa sallam dëgmal na koor mu wax saxaaba yi ni leen xam leen ni kat weeru koor ñëw na jaakum chahru ramadan al weeru koor bi yàlla barkeel ñëw na kataballahu aleykum siyaama yàlla farataal na ci seen kaw ngeen woor ko nee na weer woowu yàlla da ciy ubbi li nga xam si mooy buntu àjjana yi waaye da ciy tëj lépp loo xam si yoon la walay jëmale safara bunt yi dañ koy tëj kenn amu ci accès ngir lan yërmande gu bëri gi yàlla def ci weer woowu kon mbokk jullit yi yaakaar naa ni kon ku xam loolu dayo boobu ak xéewal yooyu waroo waroo doon koo xam ni si buñ nee weeru ko rekk ñu gis ci yow beneen jikko ñu gis sa kanam changé déedéet ab jullit du mel noonu waaye ñeenteel bi nga xam si mbokk yi war nañ ko waajalee koor yow mi may topp ci télé bi chaîne bi di KSTV xamal ni da nga war a dogu al azmu sadiq da nga war a dogu sa diggante ak sa boroom ci dundal li nga xam si mooy weeru koor woowu da nga war a dogu bu baax ca dogu buñ ko waxee mooy ab tolluwaay la boo xam nit ki da koy am fas ko ci xolam ni kat man weer wi yàlla dimbali ma ma fekke ko dinaa ko woor comme ni mu ko santaane sama kem kàttan fattaqullaha mastataatum la yàlla wax na ngeen ragal yàlla ci kem ni nga xam ne si ne noonu ngeen ma ne kon fa falaw sadaqullaha la kaana xayran lahum yàlla waxaan ni boo leen dëggoo ci li ngeen dogu xamal ni yàlla dina leen defal lu gën ca mooy ngeen jënd ci koor googu am lépp li nga xam si moom la ci borom bi digle kon juróomeel bi nga xam si mbokk yi moom lañ war a waajale koor googu mooy ni sàkku xam-xam al ilmu bi fiqhil euh, siyaam mooy ni war nañ sàkku lépp loo xam ne sii dafa aju ci wàllu koor ak i àtteem mbokki jullit ñi li nga xam ne si moom mooy lislaam ay jàngale la na yi nga xam si da koo faratal ci kaw jullit bi kooku jullit waru koo négliger da ko war a jàng xam ko lu njëkk muy def farato ba waaye weeru koor da cee rawati ndaxte mbir la moo xam si dafa fees ak dell ak i àtte nit ku bu ko bu ko defeewul ni ko yonenteem digle yàlla digal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko noonu nga xam ni koor googu mën na cee jénn te du am la ca yàlla digle ci ay yiw moo tax li nga xam si yow it war nga ko def yow mi nga xam yaay jullit bi yàlla dimbali la nga fekke weeru koor mooy lan nga topp li nga xam si moom mooy xam-xam nga dem jàngi xam-xam ak noo ko mën a jàngee nga sàkk ko rawatina atte yi nga xam si dafa aju sa wàllu koor kon loolu tam bokk na ci yi nga xam ne si nit ki da koo war a xam ndaxte nit ñi ñett rek lañ koo xam ni si ab boroom xam-xam la maanaam lii mu jublu di ci jaamu yàlla xam na ko ak koo xam ni si day jàng dafa bëgg a xam wala koo xam ni si tamit moom ab euh, jaahil la xamul ku tos ko toskore la mooy koo xam ne sii du gëstu ca yàlla subhaanahu wa taala wax na ni fasalu ahla dikri na ngeen laaj ñi nga xam ne si ñoo xam boo leen bëggee xam ci li nga xam si moom mooy seen diine kon yow amatoo benn ngan kon yeneen boo xam tamit ni kun aaliman aw mutaalliman kun aaliman aw mutaalliman aw muhibban li ahli aw wala takunil xaamis ci ni mu ko waxee kon boo nekkul boroom xam-xam na doon koo xam da ngay sàkku xam-xam ci jumtukaay boo ko mën a sax boo ko nekkul na nga dimbali ñooñ xam-xam ña koy ña ca ne nanga leen dimbali sa doole amoo ndimbal na nga leen jàppale noo leen mën a jàppale waaye nag bul nekk koo xam si yaay juróomeel ba ca mooy lan jàngoo dimbali woo ku jàng bëggoo ñañu ñuy jàng ba pare nag di teg seen kaw lu ne kon loolu noonu loolu moom yàlla nañ ci yàlla musal ca musal leen ci waaye mbokki jullit ñi juróom-benneel bi nga xam ne si noonu lañu war a waajalee koor gi ñu dëgmal euh, mooy nii dañoo war a deñ ci lépp loo xam si mooy la lépp loo xam nit ki mi ngi ko doon dem mi ngi ko doon def na ci deñ ba set wicc loo xam si jàpp na ni kat lii ak njuumte la na ci gaaw dén eh, jénn ci ndaxte kat at wa tawbatu at tawbatu bu ñu ko waxee mooy an nadamu faat ma faata ginnaaw yéene gi nga xam si yéene jàll na mooy yéene gu wér ni kat lii duma ci delluwaat nga yéenu ginnaaw dogg goo xam si am nga ko nga jénn ci ba set wicc loo xam si yaa ngi doon def kon weeru koor a ngi ñëw lépp loo xam si yaa ngi doon def sa digganteeg sa boroom sa digganteeg nit ñi bu dee àq la na nga ko delloo bu dee sa digganteeg boroom la na nga ko baalu mu baal la ndaxte àq boo xam si dafa aju sa digganteeg sa boroom loolu kat ku nekk xam na ni yàlla mën na la koo jéggal waaye bépp àq boo xam ni sii nag dafa aju sa diggante ak sa mbokk jullit loolu leen rek moo koy faj mooy nga delloo àq ba bu doon alal la nga dellu bu dee ci der la nga dem wax wax ak moom kon de wax naa ci yow sa der nangam ak nàngam kon loolu rek moom mooy solution bu du leneen loolu yàlla du ko jéggale kon mbokk jullit ñu bàyyi ci xel bokk na ci yi ñuy waajalee ba ba léegi koor googu mooy lan ñu préparé suñu bopp ci woote jëmale ci yàlla muy juróom juróom-ñaareelu point bi mooy nga fexe ni yow kat am yéene ni man kat Euh, def li nga xam ne si moom mooy euh, xamal nit ñi ci jaamu yàlla waaye dinaa fàttale nit ñi tamit ci li nga xam si moom mooy jaamu yàlla gu rëy gi ak noo ko mën a defele noo ko mën a defee moo xam da ngay maye ay téere yi wax ci wàllu koor wala da ngay dimbali nit ni ko seet toppal euh, li nga xam si mooy seen nàngam dina la jàngal sa koor wala danga julli ci jàkka ji ba pare yëkkati benn point jàngale boo xam day jàngale ci koor nga jàngale ko yooyu yëpp façon la yoo xam si nit ki mënta ñàkk mu waajale ko li nga xam si moom mooy koor googu kon mbokk yi dinañ ñëwaat euh, ci yéen ci yeneen point incha allah ñu continué mu doon loo xam si dañ koy continué ndaxte fukki point la ak juróom waaye euh, ñu ngi yamandi foofu ci li nga xam ne si moom mooy euh, deuxième point bi incha allah ñu ngi ñëwaat. ginnaaw tuuti ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu li nga xam si moom mooy ak dégg ak topp lépp lu ñu fi wax tamit yàlla na doon loo xam si ak njëriñ la ci ñun ak ci jullit ñëpp eh, di leen joxaat dig daje ba ci kanam incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu